ñu pour mener le combat aidez nous aussi vous le peuple le peuple aussi doit aider les gens lorsqu'il y avait eu référendum et que les se battaient pour dire non à telle ou telle chose les gens n'ont par euphorie il faut que le peuple écoute parfois na ñuy déglu ñenn ñi ñi nga xamante ni ñoom li ñuy def Sénégal rek moo leen ci ñor te gëm ko malgré que parfois di nga subir une politique de diabolisation mais écoutez au moins ces gens-là par rapport ak yenn pour que ces genres de combat là ne puissent être il faut éviter que demain que le Sénégal puisse avoir un autre président et que ce président-là puisse poser des actes nga ne non non bàyyi leen alors que acte bu muy poser souvent mën na am ay conséquences négatives pour ce peuple. aidez-nous aussi on peut pas continuer tout le temps à mener ce de combat-là c'est au peuple parfois de nous aider parfois dañuy wax ak suñu ak seen prise de conscience aussi par rapport à certaines choses. parce que dañu autant aussi le peuple doit aider pour que dans le combat pareil s'il y a des citoyens qui se lèvent pour mener le combat nga xam ne lii lu am solo la dimbali leen ñooñu aussi. alors Serigne Saliou mais mais Omar la loi l'article 27 c'est une loi d'éternité. xam naa ko ah, nit mënu ko dindi. Ah, Adama may may ñëwaat ak sa loi. <laughs> man man man la définition du mandat est claire dama l'article 27 laa wax de. la boo xamante ni d'éternité waaw mooy loi moom la gars yi la wax ni la définition du mandat elle est claire. avant ñuy euh, avant aborder li Adama doon léegi préciser ci lu ma Alioune Tine wax. parce que loolu dama dégg léegi débat bi Thiat je crois que Omar Faye soulevé nañ ko. Hmm. la l' éventuelle rencontre entre euh, Alioune Tine et Obasanjo hmm. Hmm. quand euh, on en parlé en 2012 biñ koy biñ biñ ciy wax man quand j'ai rencontré Alioune Tine Alioune Tine m'a dit que je n'ai jamais rencontré Obasanjo Alioune Tine et Alioune m'a dit ñi koy wax nañ wax fan la amee kañ la am ak ban lii la am. <laughs> sa Alioune Tine laa di. Oh, mais demal ci eh, recours non non non defal naa rek non. mais demal ci recours de non à ce qu'il a dit. et ña ko doon wax aussi kenn mënu ma wax ne ban lii la parce que toog naa ci télé ma dégg ñuy wax kii mais ce qu'il disait quand on les a interpellés ils n'ont jamais dit où est que la rencontre a lieu kañ la ñu ko fekkee ak lan moo fa man man dama par devoir. est-ce qu'il a seul est-ce qu'il était accompagné. Ah, waaw moo tax ma ne moo tax man par devoir lañ ma wax. il faut mën a lii maintenant ña nga Omar Faye moo ko fekkee woon. peut-être am na mais qu'il n'était pas seul. Serigne. non loolu rek. dama bëggoon clarifier rek am na waxu kilifa yu amante ne. waaw non moom laa la mais dama ne. waaw mais waaw mais ngi naan. il était accompagné. Ah, il était pas seul. donc est-ce que wax na fa. Euh, oh, que ne dañu war a prolonger le mandat de de de deux ans aussi. ce qu'ils disent ils n'ont qu'à dire. cette audience a eu bien lieu. waaw bi Obasanjo dëkkoon. dama ne a eu bien lieu en 2011. yow fekkee wala kan moo ko ah, fekkee ñu ko fekkee kay laa bëgg a xam. Adama Adama dama ne. man daal jëm eh ne jëm ne c'était Alioune ah, d'accord mais dama ne. du ko ah, moom taxaw na wax loolu dama ne maintenant ñu ko fekkee. man je les mets au défi de dire que ñoom fekkee nañ ko te léeg léeg lii lañ fa wax loolu moom parenthèse la woon rek je reviens sur la question du am solo waaw mais rek Omar parenthèse la woon rek Serigne Serigne a quitté au Sénégal. Oh, oh, accompagné de de Gadio. Omar et tant d'autres mais mais s'il y a eu cette rencontre est-ce que. comme ni nga ko waxee a demandé. Euh, au président. de continuer quand même deux ans. il y a des rencontres. qui je se pense après entre, entre, entre, entre non dama ne. alors d'accord c'est-à-dire la ba ah, rencontre bi amee le lendemain. caat mii xam na lu ñuy wax bañ tasee place de l'obélisque. dama en ont fait état. mais mais dama qui le disent. ñoo ko fekkee dañ ko wax. les gens ça c'est des invitations. waaw mais d'accord on va avancer oui je voulais faire une précision par rapport à mon information donc je close ce débat dama moi je reviens sur la question du Adama yéen laay waxal vous les communicants la vous les comme quinquinistes la yéen laa wax. <laughs> ça c'est un mais c'est vrai c'est des quinquinistes c'est-à-dire xam nga aujourd'hui quand Adama ba ba taxawee ba taxaw mu ne président Macky Sall ba muy eh, ba muy def loi bi c'est-à-dire c'était pour un problème de quinquennat Adama yaa ngi dugal président de la République loolu du sa cër. loolu du sa cër président la république ba muy def loi bi la mu waxoon clair na ñaari mandat kenn du ko fi weesu bu leen ko fi dugal ci ay histoire ay quinquennat yooyu parce que xamul tax yéen yéenay dugal nit gis nga tout ce qui arrive dans ces pays gis nga euh, Alpha Condé ba ko l'ex euh, comment dirais président du conseil constitutionnel euh, Khalifa Sall ba mu ko koy wax ne ko moytul les vautours yi la wër ba pare di la jaay xam nga mu def ndax Khalifa Sall lan ci lan la mujj te lan la mujj c'est regrettable parce que seulement dañu dem benn instant boo xam ne nii y a un groupe de communicants yoo xamante nii ou bien de spin docteurs ñoo lay wër nekk sa nopp yi troisième mandat troisième mandat troisième parce que et au fond Dieu sait que. ñu wax ñu troisième mandat deuxième quinquennat. ba waaw ba léegi rek deuxième quinquennat septième quinquennat ci dem dama ne ñoo koy wax rek xam lu ñu bëgg. continuer à jouir des voluptés du pouvoir seen cest seen ndoxu bakkan yi la ñu bëgg la ñu nekkee ñoom seen doomu tànk yooyu continuer di dund ci loolu. du du leneen c'est-à-dire vous ne voulez pas la stabilité de ce pays là léegi nag le problème qui se pose mooy yéen wax leen seen i wax mais bu leen dugal président Macky Sall parce que am na loo xam ba ko waxee c'est comme si Macky moo taxaw mu ne maa ngi def loi boo xam ne yéen Sénégal dama leen ci nax après damay def loi boo xam ne après dina indi coow mais jàpp leen ne dama leen nax je suis sûr et certain que ça c'était pas l'intention ah, du ah, président alors président oui. un septennat que ça soit un quinquennat de non cest dire may moom may eggale. rapidement on passe à l'autre sujet. mon jeune frère Saliou. Mmh. tu tombes toujours dans ce piège du conseil constitutionnel. Mmh. aujourd'hui dire que le conseil moo war a tranché déedéet conseil constitutionnel ne newu ci c'est-à-dire président Macky dafa warut déposé non problème bi tey dama ne constitution moo ko ko tere moom ci boppam dama ne yoonu conseil constitutionnel waruñu faa jaar cest dire moom warul déposer bu ñu duggee ci piège conseil constitutionnel moo koy tranché ça veut dire quoi ça veut dire que demain il le, le comment dire il il euh, il sera validé. sa candidature sera validée. sera candidat hein? non sa candidature sera validée parce que tous ces gens qui sont au conseil sont sous les ordres du président de la république. Ouais. Ouais. tout ñi nekk conseil constitutionnel yëpp. c'est pas Alors, problème de légalisme problème de légalisme déedéet c'est-à-dire que si on respecte la constitution <coughs> moo di président moom ci wàllu boppam. warul jël dossier sax. ne dama yóbbu. c'est-à-dire foofu lañ toll warul jël dossier ne dama yóbbu mais bés bu ñuy bàyyee ne day jël dossier pour yóbbu jàppale ne dossier boobu dañ koy valider. dañ koy valider c'est-à-dire ce qui demande aujourd'hui l'arbitrage parce que c'est le piège où on va mener les Sénégalais te loolu moo baaxul bu la ñu dugal ci ndëgg sarax ndëgg sërëx mënul weesu ku amul droit déposer ñu ne ko da ngay dem déposer. mais ña nga fa bàyyi ñoom ñooy décider ci loolu. très bien sëñ man daal li le conseil constitutionnel a validé l'élection législative yi aussi. exemple man li ma li ma li ma le conseil constitutionnel a validé toutes les listes. et malgré tout l'opposition a eu quatre-vingt-deux députés. Ah. Omar mën nga ma bàyyi ma pare. non dama ne dama ne dama ne conseil constitutionnel. avec les élections ah, damay daaneel mu tax mi ne ñu ñëw ci yow ak Saliou Joseph. la ñu dem man non dama bëgg wax rek. ma ne ñoom Adama ñii bu leen dugal le président Macky Sall. bu leen ko dugal. ces histoires de quinquennat yi ngeen di jël di ko agiter guddeeg bëccëg bàyyi leen ko. et pour bu leen dox ci xelu sénégalais yi les sénégalais sont des gens quand même qui sont intelligents. donc ngay dox ci maay sénégalais non non c'est-à-dire ces histoires de quinquennat leen ko bàyyi leen ko. et j'aurais bien aimé ngeen ne ma septennat boobu ndax mandat la wala du mandat su fekkee ne transition la woon kon le président était en transition bu fekke nag mandat la. là en ce moment là je crois que wax ji leer na. Ah, alors ah. Saliou euh, Saliou dégg nañu société civile euh, parce que euh, ki leen fi teewal muy muy muy Tchad que jox nañu le président de la République Macky Sall ba 31 décembre à 20 heures discours à la nation pour mu wax sénégalais yi fan fan la ñu jëm loolu suba bu fekkee ne wax na sénégalais yi ne dafay am ñetteelu mandat est-ce que du indiwaat rek li nga xam ne moom la ñu fi dundoon tout le temps parce que tàmmoon nañu ko 23 23 yi nga xam dem ci élection d' accord euh, pour euh, apporter des éclaircissements ci caat euh, je n'ai pas dit que la société civile yéen wala ñeneen dafa am ñu nekk ci seen ginnaaw. le discours de tout à rek par rapport au fameux voyage bi ñu àndoon ak ñoom Cheikh Tidiane gaajo ak ñeneen dem waxtaani ji cela veut dire beaucoup de choses dafa am timing boo xam ni ci la ñuy yenn stratégie yi nga xamante ni pour provoquer l'opinion internationale ñu commencer intervenir ci lii xew ci biir réew je parle de ce côté okay. je ne suis pas dans nit kii dafa am ku nekk ci ginnaawam ak non non je ne suis pas dans ça euh, beneen beneen partie bi muy euh, li nga wax léegi mhm. dafa amoon lu jiboka pré euh, foo jibooka daan faral di wax nul ne sait ce dans la tête d'un président mais dafa am aadama loo xamante ni si kenn du ko interpréter ci droit muy l'écriture de, la Constitution. Cette fois-ci, elle est explicite. Il n'y a aucune ambiguïté. amul dara dara lu ci lëndëm amul dara lu ci lëndëm li may saluer mooy Ababacar Gueye il fut moom professeur à l'université Cheikh Anta de Dakar dafa waxoon ci jamono bi nga xamante ni ñu ngi soppi constitution bi Omar mu ngi koy wax mu am front du non dafa waxoon loo xam ne bi mu ko yëkkatee dañu ko sëkkatal mu reculer d'un pas waxatu ci parce que moment boobu noonu opposition bi fi nekkoon dafa am lu feesoon seen bët beneen combat bu fi nekkoon boo xamante ni si taluñu woon en réalité xool bu baax a baax ce que l'autre était en de dire Ababacar tirer cette sonnette d'alarme daf ko doon xëcc pour wax leen ni lii ñu jël ñu naan avis muy avis ñu jël ko def ko décision mooy raw dispositif transitoire mm-hmm. loolu daf ko doon daf leen ci doon wax ci jamono boobu qu'il pose le débat ñu jëm ci wàll boobu je me souviens du plateau que Sidi Lamine Niass avait tenu mu daa di wax ni concert nday réew mi de dafa leer amul lenn lenn lenn lu ci lëndëm waaye doxalin beneen bi moo ñëw beneen wàll bi ñuy ñëw aadama mooy wàllu kàddu xam nga kàddu kàddu bu président Ousmane Sonko mën nañ ni ko yow de da nga bëgg jiite réew mi te sëñ Abdoulaye Mbacke waxoon na ni ku sa waxi démb waroo ak sa jëfi tey mhm. dañuy maanu ci yow ku sa waxi démb dëppoo ak sa jëfi tey mën nañu jàpp ni ku baax la mhm. waaye président Macky Sall moom waxam dafa am dayob boo tolloog charte nday réew mi bu ko waxee daal di cay dañ dafa am lu ko ci mën a fekk waaye li nga xamante ni si moom la ñuy xaar ci président Macky Sall mooy li nga 2012 ak léegi dafa yàggul dafa am loo xamante ni dañu ko xeexoon soloon ci ay t-shirt wane woon ko ci kanamu Sénégal yi léegi loolu mhm. nag daal di ñëw ba toll ci moom ñu war ko ci laaj lan nga ci war a taxawee su demee déposé ji sa candidature c'est au conseil constitutionnel de valider dafa am ku bokk ci seen mouvance muy Mahmoud Saleh s'il vous plaît oui oui muy Mahmoud Saleh mm-hmm. dafa defoon bi ñuy wàcc élection locale yi mu xam le ni les élections ne son que de non mais baromètre la mu ni bu ñu génnee ci locale yi mooy wone ni ñuy demee ci législative yi bu nu génnee ci législative yi mooy déterminer naka la ñuy demee ci question mooy régler la question de 2024 bi ngeen ñëwee fii ngeen gagné euh, je pense 39 départements sur 46 ci juróom benn weer ngeen wàcc ba am vingt 29 départements léegi les élections présidentielles wala ñëw je pense que